assise Melni, les agenda la gestion démocratique la transparence le ensemble. am solo euh, man que un fonctionnaire quel qu'il en soit da nga mobilité mobilité géographique moy nga jox ci jóge fi dem fenen waye même mobilité professionnelle mobilité professionnelle nak moy man gêné ma trop li di wax ne ñi jogé nañ fi dem Nous ñun dañu wara dem jëli ñëw mo suñu wara aussi ci suñu ministère parce que expertise bobu dina tax que Sénégal moy gagné en réalité bon donc di wax ne rek éducation nationale so jëlé lu mel ni cent quarante mille mooy téeméeri junni ak lu teg ñoo xam ne ay fonctionnaire lañu fonction publique day mel ni cent mille yi fii la ñu nekk donc loolu nag lu am solo la jafe na jafe na pour gérer ko munoo dem si benn kër doo fa fekk pratiquement élève wala enseignant wala étudiant loolu nag mission la mission la bu am solo waaye liggéey ngeen fi si huit jours loo xam ne huit jours tuuti na trop lu mel ni ñaari junni pratiquement dossier ci ay nit ngeen dem def ay choix def proposition même sous dee c'est consultatif dem ngeen vraiment ba am consensus système en tout cas man du ma si changer lu bëri waaye lii nag su demee ba jeex am ngeen aussi li ñuy wax ne yeneen commission yi si seen département yi etc cetera et cetera di wax daal que ren mën nañu wax ne que comme si Covid la ñëw am sax ñu xalaatoon que xëy na waruñu ko def waaye soo gisee li xew Sénégal au moment nit ñi ne na bi sax du dem yéen enseignants yi ngeen jàpp yi jóg nekk ay patriotes jóge seen kër ñu liberté 5 ñu conditions.

xamona sais dina bax di nga ñew liggéey ci dans de bonnes conditions loolu lu am solo parce que enseignant ou éducateur mo mo mun transformer société bu muntu don donc fi Sénégal aussi non la même. di wax leen que ma ngi féliciter bu baax ñaari DRH DRH formation professionnelle ak DRH ministère de l'éducation nationale DRH ministère de l'éducation nationale nak comme ren la ñew yagul sax bi mu mu ñew man ma identifié ko fële si bir ci canal fofu la ko identifié gis ni mu melone ni mu do liggéey ak syndicat yi ak acteur yi mané comme ñun dañu wara ñew défarat ñew installer lo xamné moy climat social je crois que ki mu na ci def dara waye bu mu ñew ba légui mu ngi and ak syndicat yi and ak directeur yi di def liggéey bu am solo donc man koy féliciter yombul nak parce que nekkoon dans son mo ne ñom pas ah. légui chaque jour je lui dama que joxe ay dossier danaa ko nga am bientôt léegi nga am ay cheveux blancs parce que c'est pas facile waaye gëm na nek que ak yeneen directeur yi ambiance bu baax mo am une bonne ambiance au niveau de top management parce que ambiance boobu une condition de réussite munoo wax ne que da ngay réussir si ministère bu mel ni nationale partout d'ailleurs dans le monde fekk doo concerter ou doo écouter etc. cetera du du concession du concession hein. waaye soo amee idée da nga war a ñëw expliquer idée bi nit ñi déglu ngeen jéem a ensemble parce que ñun ñëpp éducation bi rek la ñu école su amul enseignant du am syndicat du am dara du donc loolu moo tax ne que man maa ngi lay féliciter de féliciter nag les PRH qui ont fait un excellent travail li si des mooy que comme chaque année nous ñëw tok def ay bilan commencé nañu def lu ñuy wax né dématérialisation ñu ngi ci 21e siècle ñuy wax né retard retard dossier tout le monde le dit mais comme c'est 21e siècle kay on war nañ ko utiliser bi j'ai vu que mais amuñu carte professionnelle xaw ma ndax gis ngeen suñu carte yi commencé nañu defar ay carte mais mon ambition c'est que tout fonctionnaire mu am sa carte je suis instituteur je suis directeur je suis proviseur je suis tel je suis tel c'est le minimum Nous commencé à ko je crois maintenant aussi mais si je mais dossier kay na nous di siècle comme ça mais l'autre gis femme concertation un bâtiment avant que muy il y a un, beaucoup, de travail immense au niveau du fondement. fondement vie aussi mon architecte teg foo xam la nature du sol donc si ñëwee da nga war a déglu concerté wu seet wax man lii laa bëgg a def seen ñan nga pour ngeen donc vraiment ñu ngi une dynamique une dynamique révision dynamique réforme dynamique réorientation mais là, on ne peut le faire qu'avec l'ensemble des acteurs qu'ils soient au niveau centrale, qu'il soit au niveau de nos classes, au niveau des inspections, d'éducation, de formation, au niveau des IA, au niveau des partenaires, la société civile, parents d'élèves, c'est comme ça qu'on pourrait créer une dynamique de réussite et de transformation de notre éducation pour le bien des jeunes Sénégalais.